te ñaari kilifa yu mag bokkoon ci ñi nga xam ni leer lañu woon ci réew mi giidi lañu woon ci réew mi ndimmal lañu woon ci réew mi kaaraange lañu woon ci réew mi suñu boroom def ci ñoom la ko soob kiñ ci jëkk jaale muy Serigne Abdoulaye Thiaw Laay doonoon nit ku baax ku jàmbure woon ku taxawoon taxawaay bu rafet ci laayeen dundal fa lu bare ñépp fekke ko daanaka lenn ci mbokkam daan nañ ko seede di wax ni ña fa toog di xalifa fi mu yóbbu yoon wa ñoom mënuñu ko fa woon yóbbu loolu mës naa ko dégg ci maam raan laay yal na yàlla yokk leeram mu wax ko seede ko ci moom ñu nit ñu topp ci dëggal ko rek mm-hmm. ndax nitu jàmm la woon kenn mësul dégg ci moom lu la naqari e, bu ñu ci jógee ñu jaale Seyid Abdourahim Seck ca Ceneba moom it yàllaa ko fi indi moo ko fi jëlee kenn mënu ci dara mënul woon bañ a ñëw waaye mënul woon bañ a dem noonu la ko yàlla bëggee woon eh, cene ba bokk ci ëttu Cheikh na Ahmad Tijani radiallahu taala anhu di ëtt bu yàgg bu am cosaan am taarix boo tuddee taarixu tariqa bi fii ci Sénégal fokk nga tudd cene ba doore ko ci maam Amari Ndaak ak fa mu jaar ba tariqa bi dugg cene ba sax fa saxal fa la mu fa saxal lañ ca sentaane woon ñu di ko taxaw di ko def ah su ko defee jaale njaboot ga wan leen ni ñaar ñii ñu tudd fa ñu jóge ak fii ñu toog di wax ñoo bokk lépp mm-hmm. dara doxul suñu diggante ndax euh, li gën a foor ci li ñu bokk moo di baatub laa ilaha illa allah sayidina muhammad rasulullah ñaar yooyu kooko ko bokkal yàlla nee na defaral sa diggante ak ñoom ndax islaahu daatil bayni fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha bu li ñuy wax dañu ciy def yàlla seede nag ni dëgg la ci ñun ñaan yàlla ni ñu ko waxe woon léegi rek ñi dem yal na leen yàlla naq ci géeru yu yërmandeem ba fa ñu nekk gënal leen fii ñu jóge te yàlla nañu xeeb lu ñu yóbbuwaale ndax lu baax lu yàlla nangu moom la nit di yóbbu ca yàlla di ko xeeb mm-hmm. ndax la nga ci jële ñi fi nekkoon ak ñoom it yàlla bu seen yaakaar tas bi jaay nabil Mustafa